ma ne ma dugg ci super bi gone gu jigéen ñëw toog rek def nii boo jàkkaarloog moom gis lim jiita ma ne ko waaw soxna si defaral sa tànk yi mu ne ma xoolal maa nga bàyyi laa ilaaha illallaah ak sa sikkim lii la ma wax am na jenn waay ju ma lakkal witti ci internet waaw hmm. ah gis naa ko man oustaz. <laughs> kooku de ñoom amaay naa la ko. wa kooku lan moy problème ah xanaa ah baax na di. <laughs> amna na nag oustaz fu mu ni ba seug ni waaw. <laughs> waji du nit. man na naa toppandoo de. wax yi ñu niróole woon ko mais réegi dal ba. waaye koku neexul xam nga ko neex. Ah, ki ne oustaz ñu tak lo ñenti jabar. waaw duñ ko tak ah deug na audio bobu ah, deug ben la ni tak waye mu ma maa ñàkk tuddee diw doom. <laughs> moom de bi mu limee turandoo ba pare. ñaar fukki nit ak benn. ba pare dañ <laughs> ne kenn lay takk. waaye ay daal dëgg waaru quoi. réew bi kay li waa ji doon wax naan ku fi extraterrestre yi da ngaa amul connexion. waaw. <laughs> am koo gis rek. ma ne ma dugg ci super bi. gone gu jigéen ñëw toog rek def nii. boo jàkkaarloo ak moom gis lim jiita. ma ko waaw soxna si defaral sa mu ne ma xoolal maa nga bàyyi laa ilaaha illallaah ak sa sikkim lii la ma wax